يا خير طيف أتى بالمثل والمدد أهلا وسهلا وسريبا بلا عدد يا خير طيف أتى بالمثل والمدد أعوذ بالله بسم الله بركة برمتوبة السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq tey bal ñi paax gannaaw loolu nu fas yéenee andi li ñuy tuddee muurum koor ni ko sëriñ bu Mbàkke indee ci téereem bi ñuy wax xurratul ayni sëriñ Souhaïbou Mbàkke nee na muurum koor farata la bu wér ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tay ko te telewu ko ab saay-saay la bu bona bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm ana ku muy war nak xana asgor Sudi di ab te man ko am doonte da koy lepp sax bu yaakaaree ak pay mu diko ko war nak ci bopam ak ko xamne moko wara dundal niki soxnam ak domam ju gor ba muy mat gor ak domam ju jigen mata am borom kër ak ci ay buñu ko amul ak ci ay jaamam manam dal ci ak njabotam ak ay surgaam ana ci lu mu koy war a génne nag xanaa ci li ëpp ci dundub réew ma mu dëkk nun waa réew mii di Sénégal danañu ko génne ci dugg bi suuna walla saaño wala bési wala tiñ wala feele wala ceeb ku ko amul jënd ko joxe ko kuy dunde lu dul yi itam mën na koo génne ca la muy dunde rekk ana nu muy war a toll nag xanaa bopp bu ne ñaari kilo ak genn wàll maanaam ñaari kilo ak liibar ci suuna ak saaño ak basi ak tiñ ak feela maanaam boo koy génne ci kenn ci yooyu ñaari kilo lay doon ak genn wàll bu dee ceeb nag wala muy lu dul yii kon day wut nattukaay goo xam ne ñaari kilo ak genn wàll moo koy fees ci suuna mu nattu ko ca te bañ koo peese ana waxtu wum koy war a génn nag xanaa ya, gannaaw jullig suba ca bisub korite ga te mu njëkk julli ga sib nañu nag ku ko yeex a génne gannaaw julli korite ga ci lu dul ngànt képp ku mu war nag li fekk defu ko mi ngi ci baatam du ko wàcc mukk te deesu ko nangu li fekk defu ko ana ñu ko war a jox nag xanaa kañu war a jox asaka rek ñoo ci yam ci lépp maanaam ku amul lu mu dunde mbaa ku amul lu ko doy ci gàttal sañees na koo dajale nag jox ko kenn sañees na koo tasaare itam ci mbooloo mu ko yeyoo bu dee ci jamono ji itam day mel ne wax nañ ne sañees na ko génne ci xaalis waaye la gën mooy génne ko ca lañ ko diglee te mooy li ëpp ci réew mi nga nekk lañuy ñuy dunde boo koy génne ci xaalis nag dangay seet li ngay dunde li ngay dunde ñaari kilo yi ak genn wàll lu muy jar ci xaalis nga génne ko ca loola maanaam bu dee ceeb ngay dunde dangay xool ñaari kiloy ceeb ak liibar lan lay jar ci réew moomu nga nekk bu ko defee nga génne njëg googa yàlla na nu ko yàlla man doo te nu def ko te def ko nam ko taamoo te mu nangul nu ko te fulal nu ko te làqal ñu ko fu yàq yëggul tey ñaan itam sëriñ bu Mbacké yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ñoo ngi baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq tey ñaan yàlla mu may ñu ñu yàgg ko fekke ay déwéni déwén ñi ngi tuubal ñépp ci lépp luñ ci jóom mbaa lu ci leerul lépp ñi ngi ci jublu lëggéeyal Serigne Touba di ñaan ko dégg nga ñaanal ñu ngërëmal Serigne Touba lu sell te yàlla musal ñu ci lépp lu yàq jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu لا تسمع يا أوتار المفاتيح yal na la yàlla xiir a xiir faw ci nun tamay nuur ci yow a kog juboo góor ñi di nun naw faw kañee yal na nu yàlla boole nag boole ngërëm góor benn te dugg ci sunu xol dëkkal bu wér ci sunu xol te ñu ci kaw ñi dee fi ñee may nu sutura def nu ku dul tëli dara ku kenn dul mënaw dara ku ñuy gërëm faw kañee yaranu mbég mu bari lool wooyee ni yiw wu lool yóbboonu ñam yu bari lool daf nu mbégum ña dee fi ñee ñu jege yàlla nañu ni ñee ñu sori yàlla nañu ni ñee